te li tax ñu génn mooy ndox bu ñu sonal te jógewul ci tawu yàlla bi dañ ñu koo teg parce que dañu doon defar fii bassin bi ñuy defar bassin bassin bi ñu defar ko pour verser ñu ndox bi bi mu tawee première taw ci ñu ubbi ñetti bassin yoo xam ne dañ ko synchroniser ak canal bi ñu ñëw di ñu ko tuural fii ba mu déborder ba nit ñëpp euh, cent et quelques familles ñoo génn mënuñu dem marché ñu dem boutique ñu dem fenn jaan yi moo ngi fi di tëb barke dem yeew la ñu rey fii ci yoonu école bi jaan yi dañuy génn nii ñu leen di gis fi ñu toll ni moom sonn ñu bëgg mooy état bi yëg ñu Macky la lañuy waxal parce que ñun suñu maire xamoon na ni lii dinañu daal préfet xamoon na ni lii la dinañu daal ñun lii musuñu ko am pendant ngi fi am na ñoo xam ne dañ leen abal kër kenn du dëkk ci école dañ leen ne ñii dañ leen loué ñi am astur dañ leen loué ñi amul fu ñu jëm ñu ngi seen biir kër toog ak seen i doom ñu defoon mooy dañoo demoon pour tëji canal bi ñu jàpp ci suñuy doom yóbbu leen keroog police la ñu yendu longueur de journée benn kër toggul añ te dañ koy répété waat ñu bàyyi parce que mënuñu dëkk ak ndox ak ay jaan mënul nekk